في مخولي بجبير اسناجي كيني ريومي ñi ñoo di jàmbaar ndax ñoo ngi mu nekk jigéen ñi jaraama bu ñu xoolee ba ca biir mo mane xam nga li nga moom ma ne xoolal ba ma xoolee mbokk yuy seetaan asalaamaaleykum ñu dellu nuyuwaat leen gërëm leen sant leen si ànd bi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi koy ànd ak QTV ni ñu koy faral di defee ñu gis ne nag weer bi ñu ngi si weerum octobre mu doon weer boo xam ne nag dañuy faral di delloowaat suñu bopp si ñi nga xam ne nag ñoo amee feebari cancer bi at bu nekk dañ koy faral di def nag ba si tey gi di leen bàyyi suñu gan yi ñu nuyoo laata ñoo dugg nag si biir programme bi waxtaane tey bii nga xam ne nag mu ngi jëm si wàllum feebari kansa bi la ñu tàmbalee ak ki nga xam ne nag mooy bàjjen di mu nuyoo ak jamono yi ñuy seetaan bàjjen ñu ngi lay nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatulahi Linguère maa ngi laa fay di la gërëm bu baax nama naa la <laughs> maa ngi nuyu askan bi yëpp di nuyu ñi nga xam ne maa ñoo bokk jataay bi mm-hmm. di wax ne alhamdulilah rabil alamin mm-hmm. at bu nekk ci weeri octobre dañ dee am weer bi moom ko dee jagleel pour ñu gestu mm-hmm. ba pare di xalaat di fàttaleku Eh, mbiri feebari kansa bi ak eh, ñu waxtaan seet kansa bi fu mu toolu ak naka la mel pour mu ñoo fàttali daal ne kansa baa ngi fi te mu ngee loraa mhm. mu ngee lor nit ñi mhm. loolu mooy suñ toogaa yi tey maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi toppa suñ programme bi mhm. ah, ci at yi passé ak ñu ngi wax ñaan yàlla mu nekk at ci kanam ak kanam kanam ñuy di wax ak ñoom ah, di ñaan yàlla tamit Euh, yàlla mun mun ñoomee pexe boo xam ne dinañu mën a saafaral mhm. ci mbiri cancer bi loolu mooy suñ jotaay tey maa ngi wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaleykum salaam am na solo su ko defee bàjjen di yee bàjjen Louis moom ñu bàyyi ko mu nuyoo alhamdulilahi rabil alamin asalaamaaleykum waaleykum salaam maa ngi nuyoo ñëpp di siyaare mhm. di wax ne namoon naa fii la ëppee <laughs> wante ko fii la ëppee su ko defee ñu bàyyee bàyyi ngeen ami moom it mu nuyoo ak ñiy seetaan. Ah, asalaamaaleykum. waaleykum maa ngi nuyu képp ku ma toogal tey ah di nuyu askan bi ñoo seetaan bu baax a baax di ndokkeel suñ bopp beneen yoon di leen wax ne rek ne. jigéen bu QTV la ak Paradise Foundation as bàjjen ñoo fi ñëwaat. dëgg la waxtaan am na solo am na solo su ko defee Ouleye Ouleye Diallo. waaw ah, mooy mi ñu bàyyi ko mu nuyoo ak ñuy seetaan. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ah, Ouleye laa tudda Ouleye Diallo ah, maa ngi nuyu ñëpp di wax ne kontaan si loo xam ne daal dafa si awareness si ñu bari so maa ngi wax asalaamaaleykum. Mhm. am na solo am na solo mbokk yi ñu ngi leen di gërëmaat rek gannaaw bu ñu bàyyee suñu bàjjee nii ñu nuyoo ah, jamono yi kii nga xam ne nag mooy Ouleye moom nag amoon na ab xale bu feebaroon lu jëmoon nag si wàllum feebaru cancer bii nii moom nag si kanam tuuti dina si gën a indi ab leeral nu feebar bi ñëwee ak naka la ko doon jànkuwanteel ak naka la ah, mbir mi mujjee ak ki nga xam ne nag mooy doomam boobu noonu cancer nag dañuy faral di waxtaanee lu bëri ndaxte buñ ko seetloo cancer feebaram bëri na lool am na si ñoo xam ne nag dafay dem si weneen boo ko leen boo leen ko bàyyi xel sax suñu programme jigéen yu lu luñ daan gën a focus rek mooy jigéen yi nga xam ne ñu ngi amee feebari cancer bi te mu nekk seen ween bi ñu amoon fi ay docteur tamit waxoon si lu bëri kon nag baax na bi yoon ñu xaw a jéem a am lu ñuy ba tey di leen waxtaan si mbiri ween ko seetloo jigéen ñi la day gën a dal sax naam waaye nag ba tey dinañ waxtaan tamit si xale yi nga xam ne feebari cancer bi am man yàggumaa xam ne sax ne ne nag mooy feebari cancer bi kon baax na ñu waxtaanee ko su ko defee askan gi xam ne cancer ndekete du société ween yi rek la dee mën a nekkal jigéen ñi waaye am na xale yoo xam ne tamit feebari cancer bi dina leen dee faral di am ba tax nag ki nga xam ne nag mooy kenn si ñi nga xam ne nag amoon nañ feebari cancer bi yaayam mu ngi teew fii moom nag dinañu wax tuuti si kanam bi feebar la mbir mi demee woon waaye ba Eh, bàjjen digee bu dee mën nga ñoo wax dara lu jëm si wàllum feebari cancer bi nga xam ne jamono yi moom lañoo ñoo euh, moom la ñoo bàyyi xel si ñi nga xam ne naka ñu ngi ko am ñii suñuy jabar ñii suñuy doom ñii suñuy yaay cancer bi macha allah am na suñoo xam ne du ñàkk sax am na seen i mbokk boo xam ne am neen feebar bi ba a ci àdduna wala am na ñoo xam ne sax ba tey ñu ngi dunda feebari kansa bi te ñu nekk si weeram liggéer liggéer euh, cancer dafa yéeme dafa doy waar euh, que dafa am loo xam ne dafa moom dafa nekk si sa yaram bi di dox di dox fan koo xamee jee dafa fekk loraande jege na dañ daan wax rek cancer bi breast cancer breast cancer waaye dem nañ jamono bi gis ne cancer bi fu nekk mën naa am cancer nekkaatul rek breast cancer mhm. te nekkaatul ne cancer góor jigéen rek lay dal dafaa dal góor tamit mhm. dafaa dal góor dafa dal jigéen dafa dal xalel dafa dal mag kon mu ngi melni ni bo xamne la ne la bàyyiwul kenn mhm. waaye cancer nekk na lo xamne ne euh, yeme na mhm. titel na aduna bi nga xamne ñun suñ bëgge wax sax cancer dañu ragal a tudda cancer mhm. dañ ko ragal a tudda dañoo ne di bi nga febar bi nga xamne ken duko wax ma ñu ne si ki angal ñu ne the big C di big si pour ndik ndik tour bi tur bi parce que soo waxee cancer dafa melni ni jeex dafa mel ni moom mooy daal suñu ne am na cancer kii dee na ba pare waaye fekka nag ne tamit euh, am na loo xam ne soo ko teelee xam am na ñi nga xam ne dinañ ko mën a faj métit bi ak soono bi mooy soo demee bi nga xam ne àgg na foo xam ne ñooy wax stage four xam naa ne ñi nga xam ne docteur yi nga xam ne ñoom ñoo gën a xam dinañ si gën a dugga mm-hmm. su demee bi àgg si stage yooyu mm-hmm. daf tee difficult pour ñu faj ko waaye moom euh, cancer daal liñ ci xam fi mu nekk nii mooy fargu mm-hmm. fargu bi mooy pour ngay gën a seet sa boppa di seet sa njaboot yi parce que mun naa dal sa yaram boo foo nekk si sa yaram yax si sax kansa mun na koo téye kansa mun naa téye buñ mun naa téye but mun naa téye lépp mun bàyyiwul fenn waaw kon moom daal nekka na loo xam ne yéeme na te ba léegi nag ah ñi nga fajkat yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy gestu affaire yi feebari kansa bi yàgg di ko ut di seet bi léegi. kenn mënuñ laa wax ne la lii mooy faj cancer. cancer daal mooy op dog dog saani la mbaa ñu defal la yeneen affaire yi nga xam ne chimiothérapie ak yooyu noonu. te yooyu yëpp loo xam ne daf laa gën a lor. cancer daal doy na waar. baax na nag comme niñ amee ni jataay yu mel ni ñi ko waxtaanee. Mhm. su ko nit ñi xam ko. Mhm. ne ñu teel koo gestu. Mhm. gis ko. di mhm. nga gis ne faj bi dina yomb waaye bu demee ba passé yéen a kii rek dafa dafa dafa lora. am na solo dafa lora su ko defee ñoo ñëw jërëjëf anti eh, bàjjantie ñu ñëw si anti ami moom it ñu laaj ko mbiri feebar bi nga xam ne nag jamono at bu nekk comme ni ma ko waxee rek octobre bu nekk dañuy jàpp weer yi kansa la man damay faral di wax ne den tànn octobre bi rek waaye bés bu nekk xam nga rek weer bu nekk at bu nekk rek <laughs> feebar yi kansa bi mu ngee dem naam dañ ko jël rek jagleel ko li nga xam ne nag mooy weeri octobre pour gin nit ñi gën a ah, bàyyi seen xel si feebar bi feebar boo xam ne la amul at weer amul bés stress amul time kon nag baax na saa su nekk askan bi di dem di nemmeeku seen yaram balaa moo léet su ko defee ñu bàyyi yaa ami rek wala bàjjen ami bu dee am na lu mun a si feebari cancer bi nga xam ne am na jamono yi. waaw ah feebari cancer bi day lingeer foo ko takka rek passé na fa parce que métti na seer na foo ko takka rek ci métit passé na fa. dëgg la que man nag dunda naa ki ko am. Mm. te gis naa naka la meloon naka la métit bi meloon su métit bi ñëwee naka lay mel mm-hmm. kon waxtaan bi am na ci solo torop torop torop te waxtaan bi nga xam ne ñu ngi koy def mm-hmm. fii di ni am na solo parce que man am na yoon boo xam ne dañ ko waxtaanee jóg fi rek am ku ma kool wan ma ne moom itamit daf ko am te dafa bëgg ku mu mm-hmm. kon waxtaan bi loolu moo laa won ne waxtaan bi am na solo parce que loo xam ne dafa su la yàlla dimbalewul mun na laa rey waaye su fekkee teel nga ko yëg nga fagaru mun na am doo loolu du la dal du noonu te ñu bari dañ ko ragal ba nga xam ne dañ dee ragal sax pour dem def test bi parce que léegi-léeg ñu ne la yaa ko am loolu tax na ñu baree bari duñ ko def parce que man ñu bari su suma waxtaanee ñoom ne leen dem leen def test bi nga dégg ñeme ñu ma ko mm-hmm. loolu nag lañ war a bàyyi fu mu nekk nii loo xam ne soo ko teelee xam mun na laa bàyyi nañ góorgóorlu ci loolu rek di bàyyi suñ xel bu baax a baax te xam ne dafa métti mhm. dafa seer waaw wax dëgg yàlla soo ne dafa métti dafa seer mhm. da nga mos a dikkaa koo xam ne dafa am comme sa biir mhm. yaa ngi mos a dikkaa ku am feebari kan sa biir ndax mun nga ñëw naka la demoon boobu naka meloon waaw métti rek métti rek te su méttee doo ko mën a bàyyi ci kër gi foog nga lu ko yóbbu ci lopitaan bi mm. te soo demee ci lopitaan bi tam ñu ko mën a defal mooy lu ko seddal rek ñu bàyyi la nga ñibbi su ko ne ta su ñëwee tam méttiwaat amuloo pexe pexe bi nga am mooy nga delloo ko ci loppitaan bi rek hmm. dafa métti dafa métti dafa métti ak ngay gis nit ki tamit nga gis ne mu ngi am méttit boo xam ne mënuloo ko bokkaa moom dafa métti de dëgg kon lépp loo xam ne farlu nañ ko rek war nañ ko yokk am na solo waaw te fi mu nekk nag mu ngee bari mm-hmm. ndaxte man kees yi ma dee dégg dafa bari torop torop torop torop torop kees yi dafa bari am na solo fi mu nekk bari na torop léegi ñu dem si Badiane Louise moom it ñu laaj ko xelaatam rek lu jëm si wàllum feebari cancer bi la jërëjëf Linguère mm-hmm. comme bàjjen yi niñ ko waxee rek moom la ko àddina waxee te moom la ko àddina jooyee dëgg la parce que feebar boo xam ne la rek miti na miti bo xamne da soko ko sax mhm. yalla daf la yërëm ba miti bi mënu la ko tek mu continue time to time la ko tek igna one week nga am jam di mhm. following week mu attaquati la parce que miti bi doomi adama antalu ko su continue rek dina ko gañ te waxtom du jot mhm. te second di tamit li bajen wax rek ne dafa cher febar bu cher la du ba do la te feebar boo xam ne la foog naa tamit ne docteur si war nañ cee gën a góorgóorlu gestuwaat ko seet ko parce que loo xam ne ne danga cee dugal aleel ju dul jeex te tamit li nga si séntu mënuloo ko cee gis say famille mënuñ ko cee gis kon foog naa ne liggéey bi tamit ñi ko gestu war nañoo gën a góorgóorlu pour gestu feebar bi parce que Linguère feebar bi dafa bari fi mu ne de bàjjen a ngay expliqué ne feebar bi emu rek si ween wax na dëgg buñ man gis naa ko ko am buñ yax si wuum bi fu nekk laa ñëwee doomi mm-hmm. aadama mm-hmm. man nag si suma gis-gis dama foog ne ne fu mu ne nii ñun doomi aadama yi du góor du jigéen ñu ñëpp war nañoo jóg fu mu ne nii di gestu suñ boppa ci wàlli kër docteur la di nemmeeku nag suñ yaram tamit parce que su fekkee ne am na loo xam ne gisuloo ko fa woon nga gis ko fa foog naa ne sa wareef la nga dem si kër docteur yi ñu dem seetal la sa yaram bala moo ëpp loxo ah, parce que lu ah, ëpp loxo li ngir dëgg la pour faj ko dafay jafe dafay te di ko spend moo loo xam ne xëy da doon aaga foofu sax waaw moo tax mm-hmm. feebar bi daal feebar boo xam ne la foo ko di ñaaw njorta soo dee jigéen sàkka ñun jigéen ñi macha allah ñoo ci ëppale parce que xëj na ñun ni ñu yàlla bindee la moo tax feebar bi mun ñoo dugg at any time waaw waaye nesin sari na yenn saay tamit ci ndimbali yàlla laa wax de parce que su laa dugga doo ko xam munu laa wax ne lii nga lekk mhm. munu laa wax ne lii nga def mhm. ndimbali yàlla la rek waaye it mun nga di nemmeeku sa bopp yenn saa yi di seet sa weeni mhm. di presse di seet sa poxotaani waaw nde si sari na yi tamit yenn saa yi tamit ngay dem di gëstuwaat sa boppa jigéen parce que foog naa ne feebar bi tamit si wuum bee yooyu infection tamit daf ko dee def. Mm. parce que feebar infection su yàggee ci jigéen. Mm-hmm. mun naa def lu baree baree baree bari. moo tax ñun jigéen ñi daal fi mu ne nii. Mm-hmm. naa war nañoo jóg nag. di gëstuwaat suñ bopp li ñoo gëstoo suñ canci tey. Mm-hmm. ak or yee kër yu rafetee yooyu. foog naa ne wérgu yaram tamit. mooy lépp moo war a jiitu na solo am na solo bàjjan Louis li nga wax loolu dañ koy dëggal bu baax a baax man damay faral di wax ni sax naam ragal rek moo ñu si boole waaye nit ki dafa war a yeb lopitaan man dama bëgg ku yeb lopitaan su dee sa kawar bi soo amee looy fiil sa yow mm-hmm. dawal lopitaan mm-hmm. Mm-hmm. because xam nga comme li ma wax rek nga spend dalasi moo gën ngay dem di spend five dalasi soo teelee dem ñu xamal la sa feebar dafa tax li nga spend du bëri waaye su demee ba ëppa doole rek ngir da nga ragal boo demee ñu wax la feebar boo xam ne rek foog naa loolu moom tamit war neen koo seetaat su ko defee naka ñu ñëw si oli nga expliqué la ñu rek uh, ama xale bi nga xam ne mooy sa doom bi nga xam ne naka moo amee woon feebari cancer bi naka lay fii commencé woon jërëjëf Linguère am suma dom bi last year ñaari at rek la mm-hmm. mm -hmm. mu commencé di febar di commencé di am meni tap ci si bi so non len ko rocher bu ko lobitan ñu find out ne amu ben deret deretam bi muy wacha so ñu def investigation yu bari dañ ñu rifaa ñu because yenen hospital yi mënu ton xam lu ko jot bu démé demee nak len ko diagnose dafa am cancer leukemia cancer si deret bi so ba ñu diagnosé si saa si lañu ñu bi wax na ne. den ko admit ñu nekk fa two months pour commencer treatment. waaye dama dama surprise bi ma duggee si ward bi bi ma gis xale yu am cancer. dama tiit dama tiit sax xale yoo xam ne si biir xale yu ndaw ñoo xam ne ay eight months one year dama toog téye texte ma doom bi si lal bi di xool ma ne ñi ñëpp a am cancer ñu ne ma waa ma ne cancer si xale mm-hmm. ma ne kon lii nii la boree Gambia ñu ne lii de bori na Gambia te ñoom sa daf leen jaaxal soo cancer bori na torop torop man mi nekk si loolu sa foos de nga dégg yëg ne xale yi dañ dee am feebari cancer bi si sa doom bi sama doom bi waaw mm-hmm. bu ñu demee si wood bi ba ñu dem pour ñu dem tëddal ñu foofu si laa gis xale yu mu fa tëddal daanaka xaaf bi yëpp cancer leen am mm-hmm. mu métti lool Kan bi metti na luma gis ci bi daal metti na torop torop sax te garab tamit naxaré am nga nga ñu diagnose la ba pare ñu bindal la garab nga dem jinda nga wor gambe bi yëpp gis garab yene da nga gis xalé bu tida ndik ñàkka garab ñàkka garab mo dé tax du ko dee meek mu metti lool ma gisé li ma xamné né garab amut nenen nene amut mané dédé li mo moo ma duga media bi rek ma ut ndimbal because metti na kansa si xalé bari na te métti na trop hmm. soo yaay nem bàyyi xel trop sax ne kansa bari na te nekkul ne xale su ko amee façon kansa bu ma nekk di wax ne leukemia bi ñene dañoo wax ne ah nu ngi ko teelee am di nga ko difin nga xal ko lii daf dee mun a xale mun na koo am soo ko joxutee garab wala mu start treatment in less than a sax mun na koo rey hmm. bi nekkul loo xam ne dafa yaaga si yaram. ok bi moom. moom si kër bi alhamdulilah. def nañ tane na bu baax nag. waaw mu ngi try def nañ kimo ba pare ba léegi mu ngee jël garab. dëgg la waaw waaye yëpp amut fii. Mm, waaw yëpp amut fii pour continuer treatment bi. ok so am na garab yoo xam ne da koo soxla. waaye nag du garab bi fii ngeen ko mën a amee. waaw loolu yow naka nga fiil as a mother nga rek nga gis sa doom. Mhm. understand nga sa doom a ngi feebar war a am garab bu moo fajoo garab bi nekkul si réew mi. Mhm. yow loo dee xalaat bés bu nekk soo jógee. yàlla rek. Mhm. dama jël yëpp bàyyi ko si loxo yàlla because nga dem tëral bitaan amuloo garab dafa métti dafa métti torop bi pare nga gis sa doom bi di soona mhm. so man ma ne ne xaar ma bàyyi yëpp si loxo yàlla yeneen nga oda garab du gaaw a ñëw si yeneen dëkkay du gaaw a ñëw mhm. lu gin lu leneen xëcc si feebar bi because cancer infection la dee nekk because cancer bi su wàccee white blood cell bi yëpp infection lu nekk mun na laa dal because luy fight infection bi si biir yëpp wàcc na hmm. loolu rek moo de tax xale yu bëri duñ ko dee meek soo mu metti torop sax am na solo bàjjen am na ne wax dëgg yàlla soo gisee saa su nekk su ñoo wax ñu dee bugg a puus uh, mbir mi si sayte nguur gi ñoom la fi yàlla teg te am na yu bëri yoo xam ne ñun ñu toog fii kenn mënu ko si ñun waaye nguur xëñ na bu amee place yum dugga rek dina ko mën a sottil xëy na baax na nguur gi dee doxantu ak ñun ko war a wax ak ñun ko sañ a wax ñuy amee wàllum wér gu yaram gi di doxantu si lopitaan yi di seet feebar yi fa nekk te seeni garab nekkul si biir réew mi da imagine rek nga amee feebari cancer garabam neewul si réew mi docteur dina si dina si gën a xuus nag waaw parce que suñu xalaat la ñoo waxee rek mm-hmm. waaye moom su ñëwee dina gën a indi ab leeral ndax rafetul tamit nguur nguur jéem a seet xam nga rek garab yi ñu war a dugal si biir réew mi pour faj doomam yi li li nga wax am na solo trop daanaka nguur moo amee lépp mhm. waaye nag nguur am na waalam waaye ñun doomi aadama ñun tamit comme citizen si am mhm. nañ waala parce que ñaari boor yëpp ñoo war a nekk ñu def seen waala ah, dafa am yenn yoo xam ne foog nguur gi jug mhm. seet ko gestuwaat ko because ni ko bàjjen ami waxee cancer dafa nekk feebar boo xam ne dafa seer dafa métti boo xalaatee war a dem ba bitim réew di fa ooda garab. Mhm. ak ba waxtaan bi moo jël pour agsi fii boobu beneen affaire la. léegi soo xalaatee ki nga xam ne mu ngi yore ku am cancer waxuma sax patient bi de. Mhm. ki nga xam ne moo yore am cancer mhm. te Gambia bi sax ko gis kër goo gis. am nañ expérience ak cancer. dëgg ndax wax nañ ko ndax waxuñ ko waaye am nañ expérience ak cancer. Mhm. su boobaa dafa am yenn machine yoo xam ne dafa war a nekk si réew mi yoo xam ne dinañ mën a def early detection. Mhm. pour xam lan mooy xew. te loolu am na loo xam ne tamit daf ñu sonal parce que da ngaa gis lu bari dañoo jógee fii di dem ba ay Sénégal ak yeneen réew. Mhm. pour jéem a seet pour diagnosis waaw. xam naa ne euh, emphasis bi was more on time bu breast cancer scanning machine bi ah, ak yooyu waaye léegi nag ni ñoo jëmee ci kaw ñu ngi gis ci tamit suñ soxla ci yeneen jumtuwaay yoo xam ne mhm. dañ ko soxla te foog nga xam ne nguur bi nga xam ne ñoom ñooy si ñoo jiitu ci ñun mm. ñoo amee luwaa yi ak sarta yi mun a def mun a waxtaan ak yeneen réew yi nga xam ne ñoo ñu ëpp a doole. Mhm. nga xam ne dinañu mun a dimbale. ci wàlla boobu. Ah, pour ñu mun a dem kanam. Ah, loolu bokk na ci loo xam ne moo tax suñu jotaay tey bii baax. Mhm. su ko defee ñu mun a waxtaan. fekk waxtaan bi du nekk benn boor. mbiri wérgu yaram dafa war a nekk soxla. Mm-hmm. ñëpp ñëpp Gambien yëpp. du soxla nguur gi. waaye mm-hmm. nguur gi waaye boole ko ñun ci suñu bopp. Mm-hmm. dañ si war a jóg. Um, private sector investment. dafa important ci loolu soo moo tax ma ne soxla ñëpp la euh, nekk na tamit loo xam ne leneen a ati psychological trauma bi mu gën a opaati ah, parce que li tax nit ñi bëggu ñoo xam mhm. soo ma demee ne ma dama am cancer ca fa ma jëm ci kan lay waxal mhm. yan jéego laa war a jël mhm. pour mun a dem uti pàcc ma ñàkk xam mu nekk ci suma xel bi oo du nekk ma fàtte ko moom a gënal ma xam loolu bokk na ci loo xam ne jafe-jafe bu mag la léegi comme waxtaan bi ñoo def nii eh, am na ñu bari àdduna si yëpp ñu ngi jël ne octobre month mooy weeri yi bi ñoo waxtaanee fàttale ko mbiri coono kant ak naka la ñoo demee mbiri kant lii luñ war a def la toujours dañ ko war di waxtaanee pour ñu awee aweyaan nit ñi nit ñi ak nguur gi di leen fàttali ne mm. dafa am faana yoo xam ne dañ si war a xuus waaye duñ ci mën a xuus nag fekk ñun jóguñ wax mm-hmm. waxtaan ak nit ñi comme ni madame Ouleye ñëwee toog ci télé bi di waxtaan mm-hmm. ak askan bi di leen wan ne moom lii moo ko dal mm-hmm. ci lii la neka waa koo xam ne dal na la war ngaa mën a génn waaye xam nga ñun Gambia di culture of silence dañoo dee mhm. te duñ ko wax dëgg la am na solo kii def maa xamal mhm. du ma bugg bugguma feeñ mhm. te comme ni ma ko commencé woon der turi cancer moom bañ nañ koo tudda ba dañ koo tudd dañ ko jox beneen tur the big C oh waaye boobu la bi nga xam kenn du ko dee wax so loolu yëpp li ñoo def nii bokk na ci loo xam ne dina indi waxtaan din suñ diggante ñu ni ne dina indi waxtaan suñ diggante ak nguur gi ñu seet fan la ñoom seen doole am mm-hmm. fan la ñoo mën a seet fan la jëlee eh, dimbal pour ñu mën a xuus pour am solution solo anti Louis si lu ulay wax rek parce que foog naa kenn ku nekk si ñun fii na li mu wax da imagine la sa doom naam xam ne ne am na cancer yow xam nga ne sa doom bi feebari cancer la am waaye yow mi yaay bi ban feebar nga yaakaar ne moom nga nekk di développe gannaaw bi nga xamee ne yaa ngi bugg a faj sa doom te jumtukaay yi newul si réew mi parce que ku tiim sa doom mhm. mu feebar yaakaaruloo fen dul ci loppitaan bi nga dem ci loppitaan bi ñi ko war a faj amuñ garab yow kay dangaa gën a feebar dama ragal sax ne xale bi balaa moo dee yow yàlla boo dee mhm. ndax cofeel bi nga am ci juré mhm. man foog naa ne dañ toll si jamono woo xam ne fi mu ne nii surtout government bi war naa gertu health dañ toll foofu parce que soo seetloo doomi aadama yi fu ne nii kenn wératul mm-hmm. parce que nag nit ñi wératuñ te nit ñi amuñ xam nga uley mii mm-hmm. mu ngi nekk ci lu miti mu ngi solu nii pawda wu ñëw waaye nagul ci jàmm parce que uley dégg naa kàddoom muy wax ne dafaa yónnee garab mm-hmm. ak wécciti jamono ji soo buggee wécc ci pounds sterling dëgg wala dollars mhm. wala CFA mhm. nga war ko yónnee mbitim réew ci baadoo la miti mhm. na de miti na torop sax na man dama high time ah, loo xam ne ne government bi daf ko doon def ci leneen mu ñëw invest ko si health te ñi nga xam ne tamit na ñoom ñooy docteurs parce que duñ waxee government government ñun ñëpp ay government. dëgg la waaye nag foog yàlla am ci kum ci jiital kooku mooy di président. ak ministre am ki nga xam ne moom mooy di minister of health. dëgg la foog naa ne docteur si tamit ñu nekk ci lopitaan bi di dem round. Mhm. gis doomi aadama yi coono gi nekke ak feebar bu miti biñ nekke ak mm. ñàkk garab yi lopitaan bi ñàkk. Mhm. foog naa ne war nañoo jóg nag yóbbu report. am na solo su fekkee ne dañ ko daan yóbbu duñ leen faale. Mhm. wala xëj na dañ koo bañ a yóbbu ñuy ñu leen di gisee neneen. Mhm. foog naa ne fi mu ne nii ñoom war nañoo gis bakkani doomi aadama yi. Mhm. am na solo jërëjëf ah, jërëjëf Badiane Louise amoon na time defe naa two years ago bi ma invité yéen a jigéen lu jëm si wàllum feebari cancer bi si seen ween yi ñoom bi ma wax ak ñoom dañ ma ne woon machine newu woon fii dañ daan dem si suñu dëkkandoor yi Sénégal. pour mun a seet fan la seen feebari cancer bi toll. bu ñëwee si wàllum euh, seen weer yi. defe naa xaw ma nag ba tey ndax machine yi ñëw neen wala ba tey machine yi ñëwul gaa yaa ngee dem foofu noonu Sénégal waaye doo ñaaka xëy na docteur dina si indi ab leeral <laughs> ah kay léegi ab daa boobu su docteur ñëwee si indi ab leeral su ko defee nag euh, bàjjen euh, ami lan nga bëggoon a yokk si mbir mi rek balaata ñoo invite docteur. man li ma yokk rek mooy jigéen ñi su yàlla defee wala képp koo xam ne am nga kansa. ñu teel ko di tek exemple ñu ne la dañ war a am luñ génnee ci yow mhm. nangul mhm. ci teel waaye soo nanguwul pour génnee loolu ci teel dafa toll foo xam ne duñ ko mun a faj te loolu dafa nekk loo xam ne su ñëwee ki ngaa mun a bileem rek mooy ki nga xam ne moom la dal wala ay mbokkam nañ leen dëgër ci loolu képp koo xam ne yàlla def na am nga ko di détecté nañ ko fii ci réew mi mhm. te mun nañ koo génnee ci réew mi wax nañ la ko nangul dëgg parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ci réew mi fii mu dal leen mhm. te génnee nañ ko dëgg la soo xaw ma mbiri machine bi de mhm. waaye xam naa ne fii ci réew mi mhm. dinañ dee xam ne lii moo la dal mhm. te dinañ ko dee génnee surtout ween bi boobu moom dañ ko dee génnee loolu leer na ah, léegi gars yi commencé na di génnee pour waaw kon sant yàlla eh, waaw dañ am na solo su ko defee Oli ñu bàyyi la rek nga tàggatoo su fekkee passé wut kay dañ ko dee génnee ok soo dinañ bàyyi Oli dee am na loo bëgg a tàggatoo ak yan fasa ngi ndimbal nga soxla bu lu jëm sa wàllum doom bi ndax xam naa ne bi moom suffering and smiling la ndax du <laughs> waaw yàlla baax baax na mm. Wow, fu mu nekk ni moom ah, abroad treatment rek pour mu bit cancer bi because dam dee dem ba gis hope si ñeena xale ne ah kii cancer la am mu ngi tane even last week buma ma appointment fekk naa xale yooyu méeguñ ko ñaari xale méeguñ hmm. ko te xale yooyu dañ daan fox di ñëw seen yaay di ñëw ak man di ñëw jël garab ñu toog rek ñu méeguñ ko ndik lan fii mënun tam monitor cancer bi bu baax hmm. so abroad treatment rek ifin pour suma doom bi mun a bit cancer yaa ba pare di wax tamit yaay ne soo leen gisee seen doom yi feeling um fine very nga gis gars yi ñu ngi am yenn certain feebar yoo xam ne mun leen a understand ñoo ngeen si lopitaan bi diagnose ne ne seen doom yi cancer leen am commencé neen treatment bu leen jékki-jékki rek paak seen bagage yi daw dem ne xaaral ma dem uti Euh, garabi nit ku ñu because gis naa ñu bari ñu ko def at the end mm. seen doom yi duñ ko dee mékk ah docteur yaa ngi try garab moo amut waaw tubaab baa ko moom so government bi moom nu ñoo war nu ma aat si loolu mooy mm. ñu am cancer pour ñu am seen own side because dafa métti xale am cancer mu ngi fight infection mu dem bokk ak benn ward bi ñu bokk ak ñu am different kind of feebar mm. at the end of the day white blood cell bi su gowee down dafa mun a xëcc feebar yooyu yëpp si yaramam loolu daf koo gaaw a jox di fi ne waaw yaay tamit ñuy ñëw appointment ñeena dañoo suñ leen dischargé def nañ kii moo discharge nañ leen ba pare mhm. dañoo ne ah xale bi tane na duma ma ñëw mhm. at the end of the day nga toog te cancer nekkul loo xam ne suma doom bi bu mu am bu ma xam daal mhm. nekkul loo xam ne dafaa toog rek dem because docteur bi wax na ma ne nit na another three years bu muy nekk di jël treatment soo jëlutee mm. garab rek dafa trigger mu ñëw te su ñëwee rek jeex na mm. so maa ngi wax yaay yëpp neen gaaw suñ seen doom yi suñ amee cancer discharge nañ leen bu leen dee just toog kër. de leen ñëw appointment. ñu topp appointment si daal ngeen topp waaw. Mhm. ngeen di seet seen doom yi tamit. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Oli ñu ngi lay gërëm di la sant te di ñaan laaw buur bi tamit. Mm. mu jàppale la ak yeneen yaay yi nga xam ne naka ñu ngi jànkuwanteel feebar bu mel nii. mbokk yi dañuy dem a break bu ñu dellusiwaatee continuer programme bi. QCell, the fastest growing network in the Gambia, now presents to you the eSIM. QCell's eSIM allows you to electronically scan a code and join the world of digital SIM cards. Customers with physical SIMs can easily switch to the eSIM as well. So rush now and get connected with an eSIM and start using the latest mobile technology with your trusted GSM operator. For more information, call our customer care on 111 QCell Senior Bus. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. ok mbokk yi gannaaw bu ñu jógee si break boobu noonu nag dañuy continuer programme bi jamono yi nag ñu ngi dugalaat keneen si biir kër gi ñu xamee ko si docteur Diallo ñoom nag wax di gaane xela boo ne docteur Diallo bagaas yi daf dee bëri léegi moom dama koy bàyyi rek mu gën a introduce boppam <laughs> <laughs> docteur ñu lay nuyu. Ah, ah, jërëjëf man nag suma olof bi is not media friendly. ok ah, wante programme bi is very important. Uh-huh. loolu tax naa jéem. ok ma seet lu ma si mën a wax. ok man comme noo ko waxee man Thierno laatuda tudda Thierno S Jallow man pediatric surgeon la mooy ne ñu dee opérate xale yi. ok um, ñu nga xam ne ñu ngi from zero year ba eighteen years. Um, si biir liggéey bi tamit def nañ ma ñu nga <clears throat> ku nga xam ne mooy nekka mooy ma nekka njiiti ñu dee opéré si lopitaan bu mag bi wattu bi lopitaan bi ñu ma sas pour ma nekka dépéti magi hôpital bi so wante lu ma bugga ñi ñi gën maa xamee mooy ne comme soojoon la loolu mooy suma liggéey te loolu laa def far def jërëjëf docteur xam nga lii yëpp mënuma koo wax waaw baax na moom su ma paam wax ko moom paam am na solo ama docteur yaa ngi doon dégg tey waxtaan mi nga xam ne nag moom leen doon waxtaan man nag mun naa wax ne bu leet maa ngi soog a xam ne xale yi ndeke am na ñu si dee mun a am feebari cancer damaa jàppoon ne rek na naam xamoon naa ne am na góor yu koy am xam naa ne tam sonaloon na jigéen yi lool bu ñëwee seen wàllum weeni waaye pour ne xale bu am one year two years ba five six den dee mun a am feebari cancer bi wax diggaa ne yàlla yéem na ma jërëjëf mhm. si laajte boobu noonu Um, jigéen bu toog fii ni before uh, lu mu wax comme doomam lum am um, digala <coughs> te xam naa doomam bi tamit ah uh, kansa xamut at mun na am ku nekk mun na ko am amut tamit ne góor ga ndax jigéen nga um, amut comme fii nga jógee fale nga jógee xamut tamit ne ndax da nga am xaalis bu bari ndax amuloo xaalis ndax mhm. baadoolo nga xamut dara kansa xamut loolu yëpp dee different shades dara so so loolu mooy cancer so loolu tax nag suñu waxee cancer mhm. ñëpp war a bokka mhm. kenn warut a des gannaaw mhm. su nekkee am nga xaalis nga foog ne du la jot mun nga koo am su nekkee baadoolo nga mun nga koo am su nekkee góor nga nga ne lii feebar jigéen ñi la yow ta mun nga koo am breast cancer sax góor mun nañ ko am hmm? so so noonu la mel. ok am na ah. solo ah. dinaa la laaj du ñàkk kenn koo bugg ku bugg a laaj docteur rek mën nga koo laaj. feebari cancer bi lan moo ko dee andi. am comme si xale yi nga wax. waa si xale yi. lu bari bari ñu cancer yu bari ñu fa ñu nga xam ne kenn mun xam laa wax ne lii moo ko dee def. ok ok so loolu it's yu bari bari dañoo xool fu nekk. dañ nañ gis ne comme xamuñ lu tax kansa bi am wante. Um, tamit gis na ne am na genetic problème yu ko dee cause si xale. ok because soo gisee xale problème yu bari si xale daf dee start depuis bu mu nekkee si biir yaayam. xale bi di forme den su nekkee am na any genetic problème den su juree genetic problème boobu noonu xale bi dafaa am a risque pour am cancer boobu noonu. Uh, so lan mooy mandarga yi symptômes si. Um, cancer si xale yi dañ bari. Hmm. so um, in fact weer bu romba noonu ñu ngi publish benn paper. si hôpital bi euh, mbiri cancer xale yi dañ xool cancer xale yëpp from 2022 octobre mhm. ba 2023 euh, euh, december january so then a period of one year so buñ xoolee cancer yi si xale yëpp <coughs> ñu ngi gis ne xale within that one year ñu ngi am within Edward Francis Small Teaching Hospital because cancer su xewee fu nekk foofu lañ dee refer we had about 44 cases oh. so wante bu ñu xoolee data bi tamit ñu ngi realize ne um, from 2022 to 2011. Mm-hmm. ñu ngi amoon 198 cancer si xale yi. Mm-hmm. so wante within that one year ñu ngi am 44 cases. so bu ñu xoolee those 44 cases yi cancer bu naa a um, jiitu si cancer yëpp si xale yi mooy lu ñu def Wilms tumor mooy cancer bu dee kidney si xale yi. Oh. so wante boobu cancer boobu noonu sax su nekkee teel nañ koo yëg si xale bi. def nañ lu ñu war a def cancer boobu noonu mun naa wér. ok that's good in fact um, cancer boobu noonu moo tax um, treatment cancer boobu noonu because of success bu ñu am si àdduna si moo tax mun nañoo um, battle with other cancers. Hmm. so wante lu leukemia lu doomi kii am moom tam boo kana about 3 percent. so wante the majority ñu ngi am lu ñu def Wilms tumor cancer of the kidney. ok ñu ngi am. lymphoblastomas luñ dee wax yooyu noonu moom ah, mooy comme lu si lymph nodes si moom tam su amee cancer mm. cancer mooy ne lu nga xam ne si yarami nit amut contrôle ah, bi ko yarami nit daf dee contrôle lu bari so su nekkee amut contrôle because of feebar bi loolu mooy cancer soo ko soo soo deful dara. Mhm. daf di mun a jël yaram bi yëpp. soo signs si symptômes yi moom lan la. ah soo dafa des ban façon cancer la. ok exemple cancer bii nii. Mhm. xale suñ ko amee da ngaa toog rek nga fii ne xale bi biiram bi mu ngi néewi wante soo ko laalee di nga laa comme doñ doñ donja like a mass. ok ah xale bi di nga gis ne yaram bi dem. yenn ñu am comme fever suñ demee si hopital bi mun nañoo am blood pressure mm-hmm. so loolu yëpp daf dee nekk mandarga si xale wante bari bari daf dee nekk incidental mm-hmm. for exemple benn xale mu fa dañ doon dem si kaw saret la nekk mu daanu den mm-hmm. ñu ne biir baa ngi miiti ñu isi ko den buñ laa la ñu ne ah mu ngi amee wante kansa boobu noonu ak hmm. daanu bi amante amantewuñ dara déedéet kay ah. kon dafa mel ni bu daanu wutoon duñ ko doon yóbbu l'hôpital ah. soo baax na ngay teel a yóbbu xam nga rek xale yi l'hôpital ñu leen di seet am ah, li ma lay mujjee laaj la bu dee am na ku la bëgg laaj si gars yi fii nii fan ngeen toll ak garab am xam nga treatment cancer problème yi ñëpp la mm-hmm. multidisciplinaire la so cancer the most important thing kooku lu kii waxoon mooy prevention mooy ñu um, make sure ñu um, prevent ko wante si xale yi mm. early detection even breast loolu lañ dee wax mm. lu nga xam ne ah, teel nga ko gis di nga ko mën a faj ah, ah, so so treatment cancer bi si hôpital bi ñun si hôpital bi the most important thing mooy diagnosis mm. moom nga xam lii cancer la ndax du cancer so then mooy pathology si hôpital bi léegi nii we have a pathology service si breast soo jëlee dara si breast soo ko yóbbee si pathology ñoom ñoo la mën a wax lii cancer la ndax du cancer soo amul pathology service si hopital bi it mm-hmm. mean doo mën a jëm kanam si faj bi loolu we have it we have it and then in fact si department boobu ne we have a professor of pathologies we mm-hmm. have specialists then su jógee foofu noonu da nga need other investigation pour ñu support diagnosis bi mm-hmm. so right now si hopital bi xam nga jamono mu nekk mbir yi things yi daf dee change di improve. Uh-huh. wante léegi nii nekkuñ bente eeguñ fuñ bugg a eega wante léegi nii mun nañoo wax comme alhamdulilahi rabbil alamin uh-huh. ne eega nañ fu nga xam ne at least am nañ di minimum level bu nga xam ne uh-huh. mun nañoo def Um, dara si cancer. yan machine ñoo fa nekk. voilà so foofu laa nekk di ñëw nii. then hôpital bi léegi. Mhm. ñu ngi def postgraduate training. so hôpital bi léegi um, ñu ngi accredit programmes yi departments yi pour ñu mun a door postgraduate training. Mhm. because of that a lot of professors ñu ngi am lot of professors in the hospital. Mhm. Um, soo demee si xale yi about nine professors tey ni moo balaa meeting bi ñu ngi doon interview some three five professors ñu nga xam ne ñoo deen nelawal xale yi ak mag yi mm. ñu nga xam ne ñaar ñoo ngi war a ñëw si dëkk bi den si hôpital soo ñëwee si investigation si right now x-ray lañ xamoon mm, x-ray am na so mammogram am um, comme jigéen ñi suñu amee cancer investigation bu ñu dee def mammogram dañ daanoo amul fi demal ba senegal léegi mammogram am na ah, <laughs> so so léegi si kaw loolu am nañ tam CT scan mhm. so right now ñu ngi am four slides um, si yoon bi prepare ñu ngi prepare ground bi we ñu ngi expect 128 slide CT scan lu nga xam ne kenn xalaatut ne mun mun nañ koo am nekk lu ma wax ni it's not about mhm. politics loolu tax ma ne am a surgeon mhm. Mhm. Ah, ne comme lu la leer loolu ngay wax lu nga xam ne leerut la doo ko wax aha yeah so it's nekkul because mbiri faj. mbiri health. Mhm. amut politics. Mhm. amut mhm. Um, religion. amut anything. because ñëpp a si bokk. am na solo waaw dinaa ñëwaat si yow waaye ma bàyyi la bàjjen nii rek ñu laaj la. parce que dinaa ñëw si biir machine bi tamit. waaw um, ah, Linguère. docteur Diallo li ma wax am na solo trop. te liñ jot a dégg yaakaar am na. Euh, parce que réelee wut ne àdduna si yëpp dañ am problème yi cancer. dëkk yi nga xam ne ñoo ñu ëpp jumtukaay uppañu lu nekk. Mhm. ñu ngi jéngu wante ak kansa. so ñun tamit duñ wax ne dañ tuuti mhm. amuñ duñ jéem waaye comme yéen ci. Mhm. ci right footing bi. ñuy wax alhamdulilah rabil alamin ñu yàlla dibel ñu continuer ci loolu. waaye léegi li ma ko bëgg a laaj mooy um, yéen yéen a ngi am ngeen situation boo xam ne da ngeen mën a differentiate the type of cancer, mm -hmm. the malignant one and the, exactly. the, the, benign, one. Ah, am wax ne dafa am am nga xam am bu vaccine waaw nekkoon naa ci taalibe noosi tuuti jamono yooyu waaye léegi may laajte pour ñu mun a differentiate uh, mm-hmm. the cancer waaw ah dégg la mun nañ koo différencier loolu soo déggee pathologie mooy loolu mooy pathologie. Mm-hmm. pathologie mooy na soo jëlee dara. Mm-hmm. nga yóbbu ko foofu ñoom suñ seete dañ laa mun a wax ne bennaare lii cancer la eh, du cancer o cancer la suñ mm. xoolee cancer bi tam nañ la mun a wax ne mm. lii ban façon cancer la mm. because cancer bu nekk dafa am noo ko traité comme cancer bu nekk amul cancer yu nga xam ne am nañ comme benn yoon lañ am mm-hmm. si BRESA dafa am profiling. Mhm. so so si loolu noonu loolu tamit we have a professor of pathology ku nga xam loolu rek mooy liggéeyam. ba mu nekk a prof. Mhm. right now moo nekk magi eh, suñ provost of the medical school. ñu ngi am another pathologist doctor li c'est Gambian. Ah, so. comme suñ xoolee sa su nekkee leerut sax ñoom da ñoom yëpp a ngi fa mm-hmm. a ah, ñu ngi am other collaboration pour ñu woon ko ñeneen mm-hmm. so ñu ngee diagnose cancer si dëkk bu nga xam ne kenn xalaatut woon ne mm-hmm. mun nañ koo diagnose ah so si kaw loolu nag ñu ngi am lu nge lu tudda CT scan man wen bu ma doon jànga doctor doctoria in um, like early 2000 suma raka dafa amoon problème si boppa dama ànd ak moom ba Sénégal am nañ fa about two weeks amul sonna buñ dafut mhm. wante right naa ñu ngi am loolu noonu ñu ngi expect 128 slides ak tamit one of the ngi am MRI mhm. am na yeneen gan mhm. yu ñu am yu ñëwoon si lopitaan bi ñu ñoo laaj am ngeen ñu ne am nañ MRI really yàlla def na bu ñu demee foofu ne am na patient bu nga xam ne mu ngi si biir woon sax mm. so lii yëpp ñu ngi ko wante bente ñun we are a low income country bente we are struggling mm. te tamit kuy struggle dimbale la laajte ah so lii xew lii nii yëpp comme bentey dafa wone ne suñ suñ amee dimbal mm-hmm. bentey dañu gën a dem kanam am na solo ah. am na solo anti Louise waaw docteur dégg sa wax ji wax ji neex na trop parce que wax nga ñun ñëpp ñu kontaan ñëpp la loolu sant yàlla bu baax la mm-hmm. waaye foog naa tamit ne ni nga waxee ba ñun ñii ñu kontaan foog naa tamit nécessaire na comme ni nga toogee fii mm-hmm. pour nga mun a ñëw tooga yeneen docteur si mu mun a waxtaan réew mi ndax ñi nga xam ne ne dañ feebar suñ déggee seen ka sa kàddu seen kàddu yéen dinañ gën a am yaakaar ci feebar bi time to time ñu ñëw si radio yi time to time ñu ñëw si tv bi loolu dina faj ñi feebar nañ am yaakaar parce que man mii toog man xamuma woon ne loolu yëpp a ngi nekk ci lopitaan bi definitely te suma morom it am na ñoo xam ne xamuñ ko dafa mel ni dalal na xel dafa dalal suñu xel trop am na solo dégg dégg dégg neex yàlla loo wax waaw it's true dañ dee am programme bi docteur ja nekkoon naa ñëwoon naa si fii about on two occasion pour ñu waxtaan ak nit yi mm-hmm. hôpital bi like breast cancer bi sa hôpital bi bugg ñoo dellu gannaaw eh, mm-hmm. des gannaaw ñu ngi bugg a def eh, breast screenings um, si hopital bi on the 26th 27 dañ um, dañoo screen nit yi mamu bokkana si biopsy su nekkee am nga any suspicious thing dañ jël biopsy ak yooyu loolu bokkana si docteur li ma la laaj loolu yëpp su fekkee ne def ngeen ko mbaa am ngeen garab yu ngeen mën a ah. dimbalee doomi aadama yi mm-hmm. lii important na bu baax xam nga bu ma doon doo dama ne mm-hmm. mbiri cancer ñëpp a si war a bokk mm-hmm. ku toog fii number one ñun responsibility bu hôpital bi am mooy ne ñu mun a xam xale bi lan la am so buñ xoolee xam nañ ne moom wax na ko fi xale bi leukemia la am mooy cancer si deret bi mm-hmm. mu nga xam ne deret bi fu mu dee jógee bone marrow moo am problème mm-hmm. xale bi comme lu mu wax xale bi deretam bi daf dee tuuti mu wàcca muy am lot of problems mm-hmm. ah su yaa ngee gis ak tamit dis Wilms tumor bu ñu wax comme cancer of the kidney suñ ko amee dañ soxla garab yi nga xam ne dañ ko war a jox xale bi pour loolu waaca su ko defee man suma maasi ñoom mu ñëw na génnee loolu noonu then after xale bi continuer si garab wante garab yooyu dañ seer su nekkee government mun nañ mun nañ koo jënd ñoom rek mun naa laa wax ne duñ ko mun mm-hmm. su nekkee ne am yi ñu dee ñëw majority of ñu dee ñëw fi amuñ baa doolo lañ so it mean ne dafa war a nekk activité yi ñëpp ñu bokka si ah, ñu ñu dim ñu ñëw pour ñu ñëpp ñu mun a def loolu noonu garab yi dañ seet torop waaw man fi ma dellu rek mooy ci biiri garab bi moom laa doon paree wax mm-hmm. am na solo li nga xam ne tontu na ko kon mu ngi mel ni suñ déggee waxam fi mu nekk nii képp koo xam ne doomi réew nga mm-hmm. nga nekk fii te nga mun ko nañ booloo ak ak nguur gi ñu tëraay ñu am garab yi mm-hmm. suñ amee garab yi am nañ machine yi fii su ko defee duñ wàlliyaan mm-hmm. su ko defee baadoola dina faju borom alal dina faju mm-hmm. ndig te wax dëgg yàlla man yëg naa ne machine baa ngi fi bi nga xam ne mm. dina mun a génnee ween bi te dina ko di di teg mm-hmm. loolu foog naa ëpp na at fi mu nekk nii am na ñoo xam ne def nañ opération bi uh-huh. te soxit nañ sant yàlla kon dafa mel ni machine bi daal ñu ngi ne dangaa ñu ne ñu ne ah ki war a use machine bi kooku neexu fi de <laughs> wala ñu ne la ah machine bi déema dafa amoon problème de soo machine bi mu ngi def liggéeyam xam nga xam nga dafa comme line between advert nga ngay advertise ou ngay wax comme ethics lu nga xam ne mm-hmm. ethics la dafa it's it's very thin comme bi ko doo mën a ñëw nga ne man maa def man maa nekk docteur nii a nii mm-hmm. nii so so loolu tax nga dégga ñu mm-hmm. oyafut ah, wante soo demee si hopital bi léegi Eh, moom kii xam na ko ku fi toogoon comme ñu ngi docteur Samuel mm-hmm. eh, docteur da is a bu nga xam ne is called hemato oncologist mm-hmm. mu nga xam ne cancer xale rek mooy liggéeyam so like balaa suma maas yi di ñëw cancer yu xale yooyu noonu ak yeneen yi mm-hmm. dañ daan soona because kenn du leen laal suma maas yi ñu ngi fi léegi ñu ngee def yooyu noonu so it mean ne suñu amee garab yi am am dimbal su dut radiothérapie kenn warut a génn si dëkk bi nga ne da ngaa dem faju su nekkee xanaa su la neexee ne am nga xaalis bi bëgguloo koo def fii mm-hmm. Mm-hmm. so it mean ne ñu ñëpp suñ ñëwee together mm-hmm. ñu liggéey together it mean lu ñu war a def mbiri cancer si xale war nañ ko mën a def fii in fact government dem nañ ba nekkul mbiri politics but am na secrétariat bi nga xam ne cancer rek moo tax called eh, eh, eh, um, cancer department si ministry bi ñoom they are working closely with the hospital ah, ñun we are non partisan we are non political ñun patients rek lañ gis. ok so dafa am fay oo free la dee nekk. loolu mooy problème bi. ok xale yi nekkuñ di fay. ok ok ah, so ah, free la wante lu nga xam ne su nekkee free la daf day nekk problème for example su ma defee opération five hours opération. Mhm. benn nit maa ngi use lu bari. kenn mhm. nit rek yóbbu yëpp. Mhm. ñeneen su ñëwee duñ mun am. so so it mean ne foog. ñu dugal dara tuuti. exactement waaw. sañ naa su ko defee <laughs> dafa am loo bëgg a wax. ok su ko defee ñu bàyyi bàjjen diye nga tàggatoo. waaw ang liggéer alhamdulilah rabil alamin mm. sant yàlla foog naa comme liñ jotaay bi ñu def nii tey. Mm-hmm. nekk na jotaay boo xam ne war nañ di ko def. Ah, si bi maa njëkkee di wax affaire bi mooy ñun ñëpp ñoo war a bokk. Mm-hmm. def liggéey bii kan sa bii ñun Gambia yëpp koo xam ne mm-hmm. Gambian nga di fi eewoo. ba pare àdduna si yëpp. parce que ne sa amul faj fen mhm. ne lii moom mooy faj cancer dinañ mun a allévier waaye lii dafa nekk loo xam ne doole. Mhm. pour ñu mën koo am pour ñu booloo. ñu ñaan yàlla ñun ñëpp ñu nekk benn. Mhm. ñu xam ne bii lu ñu soxal la suñ problème la. Ah, ñu si ñu seet private sector public sector individuals ak yooyu ku nekk daal loo ci mën a def rek dinañu ñu ñaan rek yàlla boole ñu su ko defee government bi ñuy jiitu mhm. ñun tam ñu boole topp ak ñoom ndax liggéey bi mun a yomba maa ngi wax jërëjëf mhm. di gërëm di sant docteur Diallo ci teewaayam ba pare di make sure ne ñuy sensitise nit ñi mhm. because it's important li nga wax fii nii ñu bari xamuñ ko. dëgg la so looloo ta the the the information should flow. Mm-hmm. loo xam ne ñu ngi koo def ci benn secteur ci dëkk bi. Mm-hmm. Mm-hmm. dañ war a make sure ne ñu ko wax nit ñi. nit ñi xam ne lii moom lañ am. lii lañ amut. di nga gis ne loolu dina dimbale nit ñi ci lu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf waaw eh, alhamdulilah rabbil alamin kontaan nañ ñun ñëpp. parce que ñun tamit bàjjan lañ waaye lii lañ bëgg ci réew mi. la pour doomi aadama yi am wér. docteur si tamit ñu dëgëral leen seen taxaway dëgër dëgg la ñu jàppale leen ñomit seen xel dal dëgg la ndax ñomit ñu mëna fajj fe ñu feebar la parce que tamit ki fajj ak ki dimbalé su xelam dalul mhm. fokk na ne ñu ni liñ bëgg am duñ ko mëna kon docteur Diallo ñu ngi leen di gërëm di leen sant mhm. nga wax ko sa mbokki docteur si yépp ne am nañ yaakaar ci yeen mhm. bés bi tey bés bu xam ne la bés bu rëy la si ñun parce que doomi aadama yëpp dégg nañ tey ne lopitaan bi macha allah eeg mhm. na ci kaw dëgg am na fenn foo xam ne nag ne foofu wax nga fa mhm. bugga naa faa ñëw tuuti mhm. muy ñun gambien si dañ war a génnee politique si lu ne dëgg suñ ko génneewul rek suñu réew duñ gis li mun ak li munul parce que nit ki sa réew mënuloo di ko saboter always am na yenn yoo xam ne su fekkee ne def na lu baax mhm. loo xam ne su njëriñ la mhm. surtout wàcc wàlli lopitaan bi muy health mhm. war na ñoo xam ne leen jërëjëf pour ngeen gën ñoo mun a jàppale kon docteur thank you very much kontaan ami yaa nag kontaan nañ trop ah, di jërëmaat rek docteur comme ni ko ñëpp waxee di leen ñaanal yàlla yàlla gën a yokk seen taxawaay bañ mun a ah, jàppale réew mi di boo rek ne képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi te mun nga ko mm-hmm. jógal ñu bokka ñu dimbalante ci biiri garab yi kansa mm-hmm. yi parce que ñu mm-hmm. bari ñu ngi feebar tey amuñu garab mosoon naa koo wax nag benn programme yi kansa ma ne ñun jigéen ñi ci réew mi yëpp yëpp yëpp bu ku nekk indee wan dalasi ñu teg ko loolu mun nañoo dimbale ñu dimbale suñ boppa dimbale nguur gi am na solo torop kon kontaan nañ bu baax a baax docteur mm-hmm. di leen gërëm di leen sant xam naa na du ñaaka ñun as baajen soo mm-hmm. dinañ bugg a doxantu ci loppitaan bi pour gis lu fa nekk yëpp su fekkee am nañ permission boobu mm-hmm. waaw parce que nit ki tamit looy wax dafa war a leer ndax du dega ah? muy dëgg su ko defee suñ jógee ci loolu ñu mun a dugg ci dëkk bi waxtaan ak jigéen ñi waxtaan ak waa réew mi Linguère dafa am lu am ñun suñ toogaay ci fu nekk rek mooy dañoo wax ci loo nga xam ne mooy nekk ci réew mi loo xam ne mooy indi ngeneel ci réew ñi ak doomu aadama mm-hmm. ñun loolu moo tax mm-hmm. Paradise Foundation ak ñi àndal mm-hmm. jóg nga xam ne ñun ci fii lañ bokk fii lañ juddoo fii lañ nar a toog nag ba jógee fii war nañoo mën a xam lu baax ak lu bon su boobaa nag ñu seet nag la ñoo mën a jël liñ am yépp boole ko di wax ni ñi ne lii mooy lii am lii mooy lii amul mhm. lii lañ nar a seet naka lañ ko mën a defaree loolu mooy suñ jubluwaay docteur Diallo mhm. ñun mhm. ay Ask Bargain Show will be the mouthpiece because suñ toogee waxtaan dafa am ñoo xam ne digga digga dañu dee déglu ci loolu di nga gis ne lu bari mun naa law ñu mun naa joxe message bi ne leen lii mooy lii am ak lii amul am na solo docteur ma bëgg laa laaj rek ban advice nga am pour ñi nga xam ne ñu ngi indi seen doom yi fekkuñ fa garab tey lan ban advice nga am pour ñoom balaa kaa mbiri garab problème la. Mhm. parce que garab yi dañ seer. kenn nit mënut koo anta dañ dee far di am donation si garab. Mhm. dañ dee far di am eh, lopitaan bi mhm. to the government ñuy mhm. am garab ñuy am supplies wante loolu du dee bari ah, so te nekkut benn cycle lañ ko dee def comme ku toog fii mhm. wax na leen xale bi mu ngi jël garab bi toujours breast cancer o cancer yëpp so su ko su ko defee nag soo dooree mun loo ko continuer am comme lu nga xam ne da nga ko door rek léegi affaire bi dafaa gën a mer so it mean daf mhm. it's better ah. laaluloo ko sax mhm. Mhm. so meaning ne suñ buggee am luñ bugga si mbiri cancer especially xale yi or breast or anything dañu nu ñoo try pour ñu diagnose noonu lañu war a try tamit pour ñu mun ko treat yaay yi fail loolu bari na um, suñ buñ xoolee suñ data bi um, about 20 percent um, si patients yi dañ dee ñeneen dañ dee door rek doo gisaat so abandonment ah, ñeneen soloolu mooy problème ak tamit buñ xoolee xale yi sax ban time lañ ñëw si ñun mm-hmm. three years eh, on average xale yi most of them had three years fekk affaire bi di yàgg na bu mu dooree mm-hmm. wante hôpital bi ñun lu tax ñu ñoo ooyee teaching hospital lu tax ñu ñoo ooyee main referral hospital because ñun amuñ façon si dëkk bi meaning ne um, so ñun we are here mm-hmm. so meaning nag nit su ñëwee ak feebaram comme we wees na time o am na accident o yàgg feebar mm-hmm. ñun war nañoo jël time boobu noonu ñu gàttal ko be mm-hmm. mu nga xam ne kooku war mun naa war naa am wérgóor yaramam loolu mooy teaching hospital so loolu tax pour dimbale teaching hospital mu taxaw loolu responsibility ñëpp la te doo mun a toolaale teaching hospital comme nga ne o oh Edward Francis Small Kanifing o oh bunu loolu ɗum waru tam waru tam meena so so buggee wax teaching hospital danga xool teaching hospital in Dakar mhm. in Sénégal in Sierra Leone in other places mhm. nga xool ndax ñun ñu ngee perform ndax nekkuñ di perform am na solo ah. dan nga bugg a tijji ren boo nga bugg mu nekk sa final word si biir programme bi dama bëgg a wax rek ne comme mbiri cancer si xale yi mhm. am nañ dimbal si lopitaan bi ne mun nañ koo diagnose mhm. boromaam su ñëwee mun ñu ne mun nañu walk together ñu mhm. seet naka la ñu mun a am garab yi nit sa sa doom su amee anything lu nga xam ne gis xam xamew ah, nekkutoon si yarami xale bi o xamew loo xamuloo ko woon demal si lopitaan bi so any lopitaan boo dem suñ la gisee nañ la refer appropriately so ñu ngi liggéey torop pour ñu make sure ne daay c'est clear pathway um, si si mbiri cancer spécial si xale yi wante yombut wante lu nga xam ne la comme suñ liggéey la mhm. te pare nañ koo def mhm. and incha allah we'll do it waaye docteur lu ma jaaxal yaa ngi wax rek yaa ngi focus si xale yi rek mhm. mag ñi nag <laughs> waaw <laughs> xam naa moom dinañ ko def beneen ah. programme incha allah ma weer dina ñëw si mag yi parce que xam nga rek mag baax na sakantuma ba beneen jotaay parce que jëkkër jabar yi nga xam ne ñu ngi sëy te nekku di yaay nekkul di nampal doom yaay war naa mën a nampal baay xam nga noo das daan ngeen ma de ndax docteur doo leen dee wax loolu noonu pour jëkkër rek jabar xam nga rek jabar yi di nampa xam nga rek jëkkër yi di nampa seen jabar yi seen ween yi du leen du leen dee dimbale si feebari cancer bi ah mbir mbiri mbiri cancer si breast bi. waaw am loolu amul evidence. amul evidence de. so yes so si ween loolu noonu pro benn programme sax du ko jeexal. ok wante si wante si weer boobu lañ nekk lu gën important si breast jigéen. Mhm. cancer jigéen mhm. mooy ne nga teel koo gis. ok time boobu faj bi foofu lam di gën a yomba. am na solo loolu. faj bi daf dee gën a métti parce que bi loose breast tam na dem muy jël chemotherapy drug lu nga xam ne comme poison la da mhm. nga jigéen bi kawraam bi yëpp dem mhm. yaramaam bi mu mhm. loose ko den su demee sax radiothérapie boobu amanguñ ko we don't have radiotherapy so loolu su a then it mean you have to go to Senegal or other ñu ngi they are working very wante dëgga ne yàlla boobu amuñ ah, amuñ ko yàlla indi mbokk yi dafa mel ni ki nga xam nag mooy Aïcha mhm. Aïcha Baldé nag tey moo direct programme yi euh, jigéen waaye nag di gërëm tamit euh, Paradise Foundation si liggéey bi nga xam ne nag ñu ngi ko def si askan gi wax di gaane yàlla kenn demul baleen waxtaani kansa la woon jërëgéen ngëf ñëw fanaan ak jàmm bi ma xoolee ba ca biir gis naa jigéen ñi réew mi ñii ñoo di jàmbaar ndax ñoo ngi mu nekk jigéen ñi